Diomaye lui-même dit euh, qu'il a fait régner l'ordre de la loi sur l'ordre politique, alors que lui-même, euh, il a utilisé la, la, loi pour faire de la, de la politique. son Sonko Moustapha Pare ah. déclaration de politique générale Diomaye yi na ko ci euh, sowee na ko ci ah. est-ce que Sonko dina mos a def déclaration de politique euh, générale ci àddinaam bis bu euh, euh, Pastef ëppalee député ci assemblée nationale est-ce que Sonko du doon président assemblée nationale kon moom DPG ci àddinaam xëy na yàlla rek a xam mais euh, li ma bëgg a junj itam mooy le le volet communication président de la République dem na démb buur lu baax la waaye président de la République mënut def adresse à la nation officielle te tuddul bakkan yi ci géej gi ak ci yeneen fànn l'accident yeeg yooyu près <laughs> de cent morts en une semaine ci ay sénégalais yu dee ci anam yoo xam ne lu mënoon ñàkk la ngay démarrer ce discours nga jaalewaat tu t'inclines à nouveau sur la mémoire de ces gens-là mais non ah, ça c'est euh, un impair du point de vue de la ah, communication mais Euh, daf lu ko waroon la laata muy dugg ci parce que li fi xew yëpp li mu wax yëpp politique la donc on va surveiller ce qui se parce que ñaari mbir la judd affaire institution assemblée nationale dissolution njëkk a wax nag mbirum vérification des comptes publics càmbar gi ñu war a càmbar reddition des comptes loolu kenn mënu ko bañ waaye il faut surveiller ba xam élection 17 novembre yii est-ce que ponk li nga xam ni ñoo nekkoon ci Macky Sall te war a mën a sóobu ci campagne bi est-ce que nañ ko mën a def est-ce que dinañ nëpp jant bi ndax bu leen fàtte ni wala Diouf Bodian waxoon na ni mën nañ su la bàyyi ay opposants milliardaires ñuy taxawal def leen neex donc euh, semaine yi ñu jëm semaine yu intéressante la ci côté justice ak vérification des comptes publics ak ci ak ci euh, côté euh, politique leen mooy nguur gu bees gi moom loolu amatul luñ ci laam-laamee lu ne Sonko rek mooy am ah. jomay doxal ko waaw. kenn ñi nga xam ne nag ñoom dañu